bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwatil iman mustamiuna alkiram maali ulama ashaab saada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk te dañuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balwaq te di leen balaq di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole jégal su dem seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fi ci ndakaaru dellusiwaat nag yéen seen émission bi ñu tuddee jaar-jaar yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam te seen mbokk alxaaji oustaz Alioune Mbaye fas yéene ceeg feggoog yéen incha allahu ba waxtu wi jot ginnaaw loolu nag ñoo ngi doole sant suñu borom subhaanahu wa ci xéewal yi mu nu may ak jàmm ji nu nu may ak teraanga ji mu nu may te mënuñu ko may sunu bopp ñu ko ci sant bu baax te di ko ci ñaan mu dollil nu ko téyel ñu suñu jàmm jéeg suñu xéewal beeg suñu réew yi sàmmal na suñu mag ñi sàmmal ñu suñu xalif généraux yi kilifay diina yi sàmmal nu suñuy njiiti àddina teg leen ci njub jàppale leen sàmm leen ba mag ñi li ñu leen bàyyeeloon ci jàmm ak démocratie liberté bu yokkuwul it dara bañ cee wàññeeku yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla boole defal yàlla mu ci aw ay yàlla musal ci xeex xuloo yal na yàlla musal ci ak coup d'état yàlla musal ci yu sew yoo nga xamante ne yaa ngi koy dégg ci Afrique yow ñàkk ormate ñàkk teggi nag déstabiliser ni rek toroxal nit ak coup d'état nekk wàcce nit ci palaasam ak monote nit ak tëj yàlla nañ ci yàlla musal te musal ci sunuy njiit yàlla sañ nga ko man nga ko yàlla nga nu ko defal sàmmal nag sunu mag ñii nga xamante ne ñoo nu féete ci diina ji sunuy imaam sunuy xulafaa aar leen <clears throat> ndax ñoom ñooy sunu gàllaaj kilifa gàllaaj la comme ñoom ñooy sunu gàllaaj kon nan fexe ba muurloo sunu gàllaj googu te ñu ngi ci gën a mën a muurloo topp seen ndigal te di leen yaakaar te di leen déglu te ormaal leen yal na barke yi wasaarew ci réew mi ndax martaba mën naa jëriñ taalibe martaba mën naa lor tam bi waaye seen martaba yal nañ ko jëriñoo ku xamul martaba nag mooy yaakaar ni ñëpp a yem wala yaakaar ni ñëpp tolloo wala yaakaar ne ni nu nuroo ci jëmm rek yor ñaari tànk ak bopp ak loxo rek da yaakaar ni noonu la yëpp yeme wala noonu la yëpp tolloo mën na nekk njuumte waaye martaba yi bokkul cër yi bokkul may yi bokkul tolluwaay itam bokkul barakallah mbokk yi ajuma jeenu génn bi ñu tàqalikook yéen ñoo ngi woon ak yéen ci téere bu muhaay bu naafi bu mawlaana cheikhul xadim ba agsi fi nga xamante ni fi la sëriñ tubaa di ñaanale mbokkam yu baax yi mooy saxaabatul kiram di xulafaawul arba alal atiiqi yal na yàlla dolli xéewal ak jàmm ci abubakarin saddiq ma nga xamante ne moom lañu goreel baabi tariiqi kay buntu lislaam axil wusuuqi am naag yonent bi sallallahu alayhi mbokk gu dëgër te deret jaxasoo na ci muy Aïcha mi mu ko may muy doomam kullu ridain làq na bépp ngërëm moom Abubakar Saddiq loolu doy na wax mu ne ko fa kupp dañ ni alal wasiir yi yal na nekk ca jaraaf ja te mooy Omar ibnu Xattaab moom it ni magam ji def di Abubakar Saddiq def noonu la def yëkkate doomam di wax Aïcha may ko maam kuy kooku mu ni sayful bashir yi kooku mooy jaasi ja daan bégal jullit yi mooy wax dëgg saa wu dëgg jotee mooy wax la mu xalaat moo set wicc ci bëgg gum bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam leer ci nañ amu ci benn duut amu ci benn parparloo lu may lu yonent bi sallallahu alayhi tëral muy loo xamante ni xol bi nangu na day daal di exécuter cent pour cent moo xam yonent bi day laaj xaalis mbaa muy laaj bakkan mbaa muy laaj lu ndax xeex yépp Omar fekke na ko fépp yonent bi sallallahu alayhi laajee itam joxe na alalam te mosu koo wor mosu koo trahir moo tax mu ñëw deuxième position nekk deuxième xalif kon dawal na ndax moom Omar bi muy tuub di dugg ci lislaam bi boobu trent neuf personnes la am trente neuf personnes ñemewuñu julli ci biti ñemewuñu wax ci biti Omar ñëw mat leen quarante kon kooku poam rëy na lu lu trente neuf ñi mu la def bu quarante bu ñëwee ñu ñeme koo def kon ka ñëw am na pouvoir moo tax sëñ Tuubaa daan ni sayful bachir yi kooku mooy jaas ji daan bégal jullit yi redal xadiir yi ngërëmal ku sell ki yàlla nekk ci moom majril qadaa yi te mooy yàlla may dawal àtte yi alal diyaa yi yàlla nekk ci borom leer ga bàyyi na Omar mi ngi ñëwaat ci keneen aladiyaa yi yàlla nekk ca boroom leer ga axil xayaa yi mbokk mu bari kersama laa bëgg a wax mooy Ousmane ni ibnu Affan xayri ridaa yi ngën ji ngërëm minzil baqaa lu bàyyi ko ci boroom des gi mooy sunu borom subhaanahu wa taala mii wax naa la ci ajuma jéenu génn cër bi ko yàlla jox mooy yonent bi sallallahu koo may doomam ju wax roqee wax naa la roqee fu mujje bi mu génnaat du ñu yëkkati Umu Kalsum jox ko moo tax ñu tëkk Zu Nurayni boroom ñaari leer yi ki takk ñaari doom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu takk kii mu faatu mu jox keneen gis muy ñaari leer yi alal qaribi mu ne yal na nekk ci boroom jege ñaale ga maam koy wax mu ne lay sil bi kooku mooy gaynde ga ci xare yi Aliou mooy génn ci xare yi maa ngi la doon nettali àjjuma ji paase kere ba Omar bi mu wut di di di di pànk pànklu te ñëw di danga yonent bi sallallahu alayhi naan ko li ngeen woote su doon dëgg la na kenn ñëw ma yóbbu ko àjjana mbaa mu yóbbu ma safara dégg lañ kere nu mujje woon mu ne redal mu ji bi am na ngërëm de yàlla mi nga xam mooy wuyu ko woo am na ngërëmal ma artiqaa yi ànd ko yëkkatiku jaasi sidna Aliou ji jaasi euh, euh, un kilo un un kilo la woon waaw jaasi ji diisaayam matoon na kilo guddaayam bi matoon na euh, benn mètre ak cinquante centimètres xam nga loolu kon gi gën a dayoo te loolu day wow ko dara lu may képp ko nar a soyite lislaam mbaa nga toroxal lislaam mu daal si sa kaw dog sa loos mbaa mu jëflante yow ba nga nangul magam ji mooy rasulullahi sallallahu alayhi kon sëriñ Tuubaa ni mu ñaanale Ababacar ñaanal Omar ñaanal Ousmane ñaanal Aliyu mu ne fa këpp wax ji daan ne saxaaba li gën a gàtt nag kenn ku ne nga jaar ci turam mën naa yàgg te gudd te du daj mu ne kon saxaaba yëpp ñu doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla saxaaba yi ñëpp ñëpp ñëpp zawil ijaabi ñey woroom wuy si mboolem koo xamante ne nii saxaaba nga mooy ku yonent bi sallallahu alayhi wa woowoon ca bi ngay bokk ak moom jamono mu woo la nga ñëw wuy si mu sant la nga def bakkan ak sa alal tere la nga bàyyi lu bon sant la ngay def lu baax nee na ñooñu ñooy saxaaba yi saxaaba yaa ngoog zawil ijaabi ñay waroom wuy si ñooñu ñépp sëñ tubaa nee na yal na jàmm yàlla nekk ñoom ak xéewalu sunu borom subhaanahu wa taala kañ yowmal kaaba te bisum njàqare ga bisum njàqare ba yal na jàmmi yàlla nekk ci ñoom mu ngoog rida sanaa yi ngërëmal tagg wii may tagg jagleel naa leen ko tagg wii may tagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam tagg borom bi subhaanahu wa taala ngërëm lu ci dool dotti ko ñoom ñëpp jagleel naa leen ko rida sanaa yi ngërëmal tagg wii yàlla na ko jagleel naa leen ko ñoom ñëpp yal leen ko yàlla def niema rijaalu góor ñooñu amuñu moroom lahum majaaru ñooñu am nañ cër yu rëy ca jihaad ja niiloo wanaalu jam nañ leen jam nañu noon yi ay jaasee ki fit noon yi jam nañ leen ay jaasee ki fit jaaxasoo ñoom rekk bëggatuloo doom bëggatuloo jabar bëggatoo alal bëggatoo ci dund gi baatub laa ilaaha illa rek nga bëgg a dégg fatt taruus jàkkaloog déggu xonq cur mu jaral la ko Sëñ Tuubaa nee na ñii duñu moroom waxtal anaay ci jamonoy ci jamonoy cong ko rida sami ngërëmal ka nga xam ni mooy dégg lépp dara ump ko yàlla na sax ci ñoom alal jamii yàlla nekk ci ñoom ñépp yowmal xushuuci ci bisub ragal ga yowmal nidaa yi bisub woote ba sëriñ bi nee na neema rijaalu góor ñii muy wax te wax naa léegi saxaaba yi tudd naa aba Ababacar fu mu jaar ak moom wax ay nga ne la ma ki xar baaxam wax la Omar wax la Ousmane wax la Aliyu daane wax ji day gudd naa ñëw kon ci saxaaba yi ñoom ñëpp rek yal jàmm yàlla nekk ci ñoom kañ yowmal kaaba bisub njàqare ga lan mooy bisub njàqare ba mooy bis boo xamante ne ndey amul baay amul kenn ku ne ci sa jëf dong ci ngay suturloo ci sa jëf dong ci ngay ame li nga bëgg ñooñu sax nag. ngërëm li ñu am ak sagal gi ñu sagal yonent bi sallallahu alayhi ci wuy si ko ak nangu ko jox seen alal ak seen bakkan rëdda sanaa yi ngërëmal tagg wii may tagg jagleel naa leen ko may naa leen ko ah neema rijaalu góor ñooñu ñooñu euh, amuñu moroom lahum majaalu ñooñu am nañ cër yu mag ci jihaad ja niiloo wa naaru jam nañu noon ji noon yi jam na leen waxtal anaa yi jamonoy song ko rida samii ngërëmal ka nga xam ni mooy dégg lépp dara échappé wu ko alal jamii yàlla nekk ci ñoom ñëpp yowmal xushuuci bisu ga bisu ragal ga mooy bisu yowmal xiyaam nga xamante ni yowma tashalu kullu murdaatin amma ardaat wa tadaau kullu zaati xamlin xamlaha wa tara naas sukaara wa maa hum bi sukaara walakin azaabala shadid bis la boo xamante ne mi ngi ñu sunu kanam da ngay gis kuy dox beeg mu daanu ci suuf mel ni ko xëm maa ko man di di kayan ñu naan lan la lu ko dal ñu gis eh, ñu naan dara dalu ko tiit doo ko jàpp nga gis kuy dox la newante biir bi di yureeku butit yi wàcc ñu naan kii ku ko jam ak lu ko dal ñu ni fekk na tiitaange ak njàqare ak ribaa bu feesoon ci xol mooy yureeku commencé weer borom bis boobu mi ngi sunu kanam yal na ci yàlla musal sëñ Tuubaa nee na bis boobu saxaaba yi nga xam ni ñoo doon toppee ndigal di bàyyi tere di def li ñu leen sant hein bis boobu di bisu ragal ba ak bis bi ñu wootee yow man ni daay bis bu ñuy wootee ñëpp ana diw ana diw ana diw nee na bis boobu yal na saxaaba yi nekk ci teraanga yal na nekk ci mbégte li ñu yaakaar ci ñoom yal na ko yàlla def bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arbaabi xayrin daañu leen delloo yiw li baaxi mayrin ci ña doon def yiw ñu doon def yiw kat yowmal qiyaam bis boobu képp ko xam ne yaa ngi woon ci jàmm di def jàmm di jaamu sa borom subhaanahu wa taala di ragal yàlla ragal li la tere nga jàpp xam ne jàppaloo ne àdduna bi ay caaxaan la jàppaloo ne àdduna bii maanaam jàppaloo ne bii ak kër la àlaxira ay caaxaan la buñ la nee bàyyil sàngara nga ne eh buñ la nee bàyyil tox nga ne eh lu xew lu nekk luy génn xaalis xoolaloo lu ci yàlla wax xooloo lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoo lu ci diina def ak lu ci diina deful lépp luy mayeb dërëm rek nga topp mbindum àdduna mii sëñ tubaa nee na arbaabi xayrin daañu leen delloo aw yiw ku xii ku suuroon ci àdduna ak ni mu mel ak yi muy rafetal daañu la delloo aw yiw ëllëg yowmal xiyaam ba nga defee ne yow rek la yàlla bind arbaabi dayrin ñi nga xamante ne nag ñoo doon beew ak di jalgati génnuk topp lu ñu tere nga nekk ca lu ñu santaane nga bañ ne ci sa bopp guddeeg bëccëg doo déglu waaraate doo déglu nitu diine alxuraan sa yoon nekku ci lislaam sa yoon nekku ci nga jiital sa bakkan rek ak say bëgg-bëgg nee na daañu la delloo sa jalgati googu nga doon jalgati daañu la ko delloo mu ne fa ku wax bi daan ni kullun sujaaun ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ saxaaba yi ma la doon wax nii ñoom ñëpp jàmbaar lañ lahu tibaawu ñeel na leen ak tuub ñeel na leen ak topp ndigal mu ngoog lahu tibaawu ñeel leen ak topp ndigal la hurti faaw ñeel leen ak temm waxta rifaa ca jamonoy songoo ja mu ngoog nee ca ñoom ñëpp jàmbaar lañu lu tax ndax ñoom ñëpp ñeel na leen ak tuub bàyyi lu bon bëgg lu baax tasaaroo ci àdduna bi yëkkatiku ko ñoom ñëpp àndandoo nekk mu raabitoon ca jamono ni temm taxaw xalaa mandir bàjjoo xalaa xalaa doo fi jaar lislaam rekk a fiy jàll waaye kéefaruk caay-caay du fi jàll waxta rifaa yi ca jamonoy songoo ga jonga jamonoy songoo gi keroog ba ñu demee Badar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangu njëgg mi moo ko a dem ñu dem ba ca yoonu Abi Sufyaan jaar tefes rawale njëgg ma sunu borom ni kon léegi nag fayu leen ñu ngi ñëw waaye taxaw leen xaalis ñoo ngeen xeex ñoom léegi xeex ak sam noonu nag déggu xonq turu la sang bi leen lu ngeen ci xam ñu ne ko ñun amuñu xam-xam amuñu xalaat yow lañuy ñuy déglu loo ne acca ñu ne acca loo ne def leen ñu baf loo ne bàyyi leen ñu bàyyi déegu xonq coy moo taxaw waaye pare nañu pour dee léegi léegi léegi sunu doom yi ci kër ga ak sunu soxna yi ci kër ga yaanu ko gënal alal ya ñu bàyyi ci kër gi ak gànjar yi ak bulóor yi am bàyyi ci kër ga yaanu ko gënal baatu lislaam jóg ak adduna bi baatu laa ilaaha illa sax ci àdduna bi ñëpp di ko jëriñoo jaral nañu sunu bakkan ñu wuute ka te ñiy ñëw ëllëg tegu ci siraatu moo tax sëñ Tuubaa nee na waxta rifaa jamonoy songoo ñoom ñëpp way temm lañu taxaw temm ci xalaa mandir bàjjo xalaa xaraat doo fi jaar niemal kumaatu gawar googu amuñu moroom niemal xumaatu kaaraange googu amul moroom aydan amaatu ñoo daan rey noonu yàlla ya bi lax fi bi bi bi lax ixtifaa yi bi laxtifaa yi ci lu nëbbuwul ñii gawar gi kenn du duñu moroomu kenn nga gawar la goo xam ni bu ñu mosaan takk rek baatu laa ilaaha illa rek lañu dégg fas yi dañoo déggal ñi ci kaw jaamaarloog fas yi yéefar yi jullit yi jàkkaarloog euh, yéefar yi nit ñi Sëñ Tuubaa ne neema baax na gawar googu amuñu maas neex ma baax na alxumaatu kaaraange googu ndax idan noonu yëpp amaatoo dee nañu ndax jullit yi ñoo leen rey bañ jeex bi laxti ci lu àndul benn nëbbu moo tax ci loolu sëñ Tuubaa nee na bihim afawtu bihim afawtu wa majafawtu بهم نافيت ذا افتراي تنولي قيري أدو دير بأذن خير ما احتراي sëriñ bi nee na bihim afawtu man sëriñ Tuubaa ci ñoom laa jéggale samay noon ndax lii laa xem ma man bëggoon ko te fekkuma fi waaye li ma am ci tuyaaba ak li may am ci gàllankoori noon ñépp dem di dal sama kaw di jéem a sakk lislaam ak di jéem a fatt lislaam sama bakkan du ko fekke sama koom-koom du ko fekke sama xam-xam du ko fekke sama doole du ko fekke ndax naka naka saxaaba yi doon defee nekk mu raabitun taxaw di bañ lu bon di xeex ndax booba jaas lañ jàkkaar lool man nag ay noon laa jàkkaar lool noonu yoo xamante ne nii baatu laa baatu laa ilaaha illallaa daf leen di déranger noonu yoo xamante ne nii suñu sañoon réew mi nekk réew moo xamante nii réew mu lëndëm këruus la ci majjuus ak kéefër ak naan sàngaraak lekku midd ak jaxasoo góor ak jigéen comme ni ñu ko defee ci réew yu bare bare bare yàq sa seeni i jikko yàq seeni i koom-koom nappaaje leen ba ñu fàtte seen bopp sëñ Tuubaa nee na néema ñoo ñoo baaxoon néemal xomaatu garago a kaaraange jullit yi ci ndigal yoon bi sallallahu loolu lañ doon baare pour loolu ba am ñu leen ci rey ci lu nëbbuwul loolu tax maytam afawtu bihim waaw ci ñoom laa jéggal ci sama tuyaaba ji jël naa ko ak ci seen tuyaaba ñoom jéggal leen ndax bu ma fekkoon def na ñoom nee na wamaa wamaa wamaa jafawtu te duma leen bëccëngal duma bëccëngal sama noonu def nañu lu ma naq di tooñ nañu ma yóbbu nañu ma juróom-ñaari at yu manqué juróom juróom-ñetti at yu manqué tuuti gisuma menn mbokk tàqale ma ak samay mbokk tàqale ma ak samay doom tàqale ma ak sama réew yóbbu ma ci dëkk yoo xamante ne xamuñu ma xamuñu ko ma xam ngir métital ma ak xëbal ma ak ragalloo ma ci lii ma nekk waaye bécce nga lu ma leen baal naa leen jéggal naa leen comme ni yonent bi sallallahu alayhi defoon bu mu jógee màkk fukki at ak lu topp dugg si màkk daaneel xërëm yi jàkkaarloog ay noonam ni leen maasaa taraw na inni faalun bikum lu ngeen foog ni moom laa leen def xaalu xayran lu baax dong lañu yaakaar ndax anta axun karimun wabnu axin karim ko baax nga dooy mbokk mu baax nga ñun kay ñoom lañuy la ñuy xool suñu mbir waaye ko baax nga mu leen fashabu fa antuma tulaqa dem leen jéggal naa leen sëriñ Tuubaa tam bi mu ñibbisee ci géej gi loolu la wax afawtu anil lah daayi turan li wàcc man nafaa li xayri laay wala su at wamaa jafawtu jéggal naa leen te bécc ma leen toroxal leen door door leen a weer leen door leen a jéggal ŋàññi leen xotti seen orma door leen jéggal déedéet wamaa jafawtu bécc nga lu ma leen bihim nafaytu ci ñoom laa xool rek dàq sa weftiraa yi ñama doon duural ñama doon duural ñëpp di ma wax ne damay am ay ay arme dama wax ne damay yor kënu dama wax ne damay xeex ak nangam nangam dama yor ay soldaar damay nangam nag ñoo ñëpp bihim ci saxaaba yooyu nafaytu ci ñoom laa xool rek dàq sa weftiraa yi ñama doon duural ak di ma tuumaal naan ma lii laa am wala uma ko ba jéggal googu sax tax na tan xuu li xayri tan xuu dëgmal nañu dëgmal na dëgmal nañu feneen walif man jéggal naa leen rek comme jéem nañ jéem nañ ci man dara dem nañu ba ma aada u noon noonu ya nga xam ni ñooy loraakoon ya bi usni xayrin ca boroom noppi yiw ya te mooy yent bi sallallahu alayhi wa sallam yi kooku moo daan buddi buutu kéefër yi fu ñu musaan samp seeni tànt fas yéene fa saxal ak mbon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo laa leen ba fekk guddi mbaa bëccëg wax leen baati lislaam gaara leen suñu nangoo dugg ci diine lislaam muy seen jàmm mu sampal leen jàkk bàyyi fa ilimaan mu leen di jàngal suñu ko nangul mu xeex ak ñoom ña féetal ñu mu rey leen ñi mu jàpp leen def leen jàmm ba keroog muy daaneel seen ngénde yi samp baatu laa ilaaha illallah loolu rek ci loolu loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk moo tax sëñ Tuubaa nee ne fawwattu jébbal naa sama lépp yàlla li mubqi umri li de ci sama giirug dund maa ahli badrin moo tax mu boole ma ak waa ahlu badar boole na ma ak ahlu badar bilam tiraayi ci benn werante inni aqulu maa ngi ñaan wala yamiilu te du ma jëng mukk sama ñaan googu lii man yasuulu man xaadimu rasul euh, yàlla bu ñu agsi ci man noon yi yàlla bu noonu agsi ci man maanaam jëraa yi way féetéerlu itam yàlla bu nu si ci man noon yi ñu noonu lislaam lañu noonu nag ak pexeem du jeex mën naa xeex yow nga daan ko mu dàkk sa doom mu daan ko mu dàkk sa sët mu daan ko waaye dalay topp rek sa sët sa sët sëraat comme ibliis na mu ko doon waxee suñu boroom waaw la ughwiyannahum siraatakal mustaqim aadama mii nga ma jënde danaa ko beewloo ba mu bàyyi sa yoon wi ba du la ba du la topp dinaa beewloo ay sëtam ñoom ñëpp dinaa fëkk seen mbalaan ba du la topp moo tax musu a tekki ngembam ku mus a jóg jëm ci lislaam rek dal na ci sa kaw waaw moo tax toujours man damay wax ni ñun ñi nga xamante ñoom lañ tudde ay ilimaan ñii di association mouvement islamique bu kenn dugg suñu diggante bu nu nekk bu nekk mukk ñaar ñoo bokk benn cause bu ñuy défendre bu nu waxante lu ñaaw bu nu seedante lu ñaaw bu ñu ragalante benn rek la allahu akbar asalaamaaleykum xibla gi ñoo ko bokk kaaba gi ñoo ko bokk xëy na bokkuñu façon xeexin waaye toog leen ngeen waxtaan ci seen biir toog leen ngeen waxtaan déggoo leen ci seen biir ñun ñëpp kat nee nañu ay julit lañu te julit googu dem dañu koy nangu comme nee nañu julit nañ nag sañoo génn kenn ci diina ji nanu àndandoo bokk benn baay bokk bokk ndey bokk baay ànd sàmm jikko yi ak ligue des imams association de imams et des ulama ak daara yi yéen ñépp benn ngeen noo bokk lu ñuy bañandoo noo bokk lu ñu bëgg kon bu leen kenn séparé bu leen xaar ku leen di woo ngeen di séq taabal wootante leen wootante leen seen biir ndax yéen a bokk intérêt yéen a bokk lu ngeen di défendre leneen li ci mooy ñi nga xam ni seen yoon nekku ci nekk ci rajo yi di politiciens yu nëbbatu nanu génn ci diggante imaam yi ab imaam kenn du ko xas ab imaam kenn du ko saaga ndax du morom àdduna tax koo jóg leneen tax koo jóg bu ngeen dee xasante kay ak di waxante waxante leen ci seen politique gi ngeen bokk ndax lu ngeen mën a wax lu nekk yéen mën ngeen koo muñut waaye ab imaam boo xam ni ba nga juddoogul ba léegi mi ngi ci rajo yiy wax di jàngal xuraan nekk gën la gëm lislaam foofu di xeex ba nga juddoogul ba nga judd fekk ci muy xeex ci diine nga xëy xëy leen fu ngeen jëm rek nga bëgg ko traité yéefar di ko traité tous les noo loolu dugg dara gënu koo ñaaw leneen la des mooy yii ñuy télécharger di ko def ay vidéo di ko yóbbu ci nit ñi di télécharger waxu nit dagg ko monter pour xiir nit ñi nañu ko bañ nañu ko ba ndax kenn ku ci nekkat jàppal ni sa bàmmeel yow dong yaa fay nekk te ay jullit la nag na leen régler suñu bopp te mooy te di raw ay buum ba sëll yi naaw maanaam ba sëla yi nàmp nanu moytandiku di raw ay buum ba sëla yi nàmp suñu tàqalikoo barewunu même bu nu baree it amunu pexe amunu doole waaye bu nu fexe ba boole na ba nuy xeex nag dinañ gën a néew doole dinañu gën a néew doole kon na na leen demee xel yéen waa sàmm jikko yi yéen association des imams et des oulémas ligue des imams association mouvement islamique yi association yeeg mouvement sopp na bi yeeg yéen ñëpp yéen a bokk benn jëmuwaay yéen a bokk benn jëmuwaay président baag vice président baag ñun ñëpp comme ay jullit lañu te noo julli di woor na leen seedante lu baax te àndandoo xeex lu bon bañandoo lu bon te bu mu jur ak tàqalikoo suñu biir sëriñ Tubaa de ñaanul ay jullit yu tàqalikoo alaaji maag noonu maam laay ñes mag ñi moom laa naa euh, maam imaamu laahi ñoom ñëpp àndandoo la nu wax nekk benn ndax séparé bu du suñu njariñ ma ngoog moo tax mu ni yaasal ja yaasal jalaal yi yow yàlla yaay borom màgg gi yaa mu taal yow yàlla yaay borom kawe gi yaa xayrawaal yi yaay gën ji kilifa ajib duwaa yi yàlla nga nangu sama ñaan gi salliwa wa sallim yàlla nga dolli xéewal alal mukallim ca ka nga xam ni euh, moom mooy moo moo tànn yonent bi salaa ka nga xamante ni moom moom lay yonent bi salaa doon waxanteel ndax bu mu demee ba ca asamaan juróom-ñaar moom rek la waxal yàlla yàlla fexe ba muy dégg waxam yaramam yépp di ko dégg moom te muy wax yàlla di ko dégg foofee mu wax ak moom nag kenn mosu faa teg tànk te keneen dootu fa teg tànk Moussa li baax baax baax baax waadil muqaddas fii ci kaw suuf la yàlla la ko yàlla recevoir te ci jëmmi garab la ko feeñu muy wax Moussa di wax waaye nag fa ñu yóbbu yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ca asamaani juróom-ñaar ca fa nga ne nopp ak bët su fa yeggee dootu am doole di dégg dara ndax oxygène bi amu fa kooku mooy alal mukallim ka waxante ak wa duuri wa sama kër yàlla na nga leen aar wa sun yi yal na nga ñoŋal sama njaboot alal rasuul yi yàlla nekk ca yonente ba baabil wusuul yi moom mi buntu buntu eh, àgg ci yàlla ku bëgg àgg ci yàlla kii bunt bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku mooy baabil buntu àgg ci yàlla foofu la feneen foo bëgg a àgg ci yàlla jaar feneen te jaaroo ci moom nee na doo àgg kooku baabul wusuuli li nay li suuli moom mi joxe liñ doon laaj li ñu doon laaj muy xéewal ak jàmm ak démocratie àgg ca kaw kookoo ko am leneen lu la nit mën a jox ak fu mu ko mën a jëlee ci moom la ko tirisee te bu ko tirisee itam te amu ci ngërëmam itam du am lu mu bëgg ahmaaru yi yal na yàlla sàmmal ma sama càmm kon taalibe yeeg njaboot geeg dong yi ñoom ñëpp yal na yàlla dugal ci biir càmm gi ci càmmuk Sëriñ Tuubaa gi mu ne salli dawaamaa yal na yàlla dolli xéewal gu sax wasit salaam yi dolli mucc ba faw abadan mu ne washkur xilaam yi yal na yàlla gërëm sama xalima mooy mbind bii may bind yal na ko yàlla gërëm lii wa binaa yi ak sama tabax yi sama tabax yi Sëriñ Tuubaa mi ngi ñaan xasida yii muy bind yal na ko yàlla gërëm yàllay mbind mbind mu mu gërëm mbind mu mu ñëpp sopp mu ñuy jàng fu nekk ba ëllëg àllaaxira sax ñu koy jàng ndax téere bii di mu waay bi booy dem ca tarjumaan ja jigéenu urul ay ni way ya ñuy wayal góori àjjana yi ak ña yàlla gërëm fii ci àdduna ba ñu dem foofu ñu àjj na soxna ya ñuy am ñu leen di wayal sëñ Tuubaa nee na la ñuy way yàlla nañ ci boole téereem bi di mu waayi bu naafia booy dem ca termine tarjumaan di loolu lay wax mu ne lii mayit nga gërëm ma wa yi ak sama tabax bi tabax ci mooy tuubaa tuubaa ci jëmmi boppam muy dëkk boo xamante ne almahrusa bu yàlla sàmm la bu yàlla aar la fa mu na mu la mu duppee dëkk ba ak dëkk tuubaa ci boppam la muy firi ak la muy signifier di génnul texe rek ak mucc àdduna ak alaaxira muy barab ak pàkk boo xamante ne moom la ko yàlla yenkeewal ci njàmbaar ak góor-góorlu ak taq ci borom bi ak jaamu jaamu borom bi subhaanahu wa ak wéy ci ndigalal ki ko yàlla booleel muy rasulullahi sallallahu te yàlla jox ko ab añ mu nar cee añ moo tax mu ni yàlla yàlla nga ñoŋal sama tabax bii muy tubaa ak yoonu murit wi nga xamante ne nii wérdu maaxuus moo ci nekk muy gën di jëm kanam bàyyi mu nekkit bâtiment bu wóor tabax boo xamante ne nii kënu mënu koo daaneel pas-pas bi ko samp ak ngëm-ngëm bi ko tabax ku juddu ci loolu la ngay ngay màgg ci loolu ngay loolu ci loolu ngay wéy moo tax mu dëgër ndax mën ngaa jël bâtiment ak beton dóor ci arme mut mu mokk waaye xol bu suudee ci gëm ngëm goo xamante ne mënoo ci wax lu yàq pas-pasu borom mbaa mënoo wax lu tax nit ki bàyyi ki mu gëm ak ki muy topp loolu moo gën fuuf béton armé moo tax mu binaa yi ak sama tabax bii yaasal iraada yaay koo xam ni loo namm loolay am yaasal ifaada yaay borom teraanga ja yow yàlla xalit saada béelal ma faw sama tabax bii sama waaw bé béelal ma xalit béelal ma saxal béel mooy sax saada faw wu sama texe sama texe maa ngi màndal lii bitinaa yi yàlla na nga may ak njëggal xinitidaa yi yàlla na nga ma musal ci way jalkat yi zit yi yàlla na nga ma dolli ak njub zit nixtidaa yi yàlla na nga ma dolli ak roy bilaa anaa yi ci lu àndul ak benn coono sa fixtifaa yi yàlla na nga sellal sama dellu si ci yow yàlla na nga may mujj gu rafet yàlla na nga may mujj gu rafet goo xam ni ni su may dellusiwaat ci yow damay dellusi ak orma dellusi ak ngërëm bàyyi fi nag barke bi ak way wektur wi ak baatub lislaam bi ba abadan ba fii ma ne ci Tuubaa ak lépp lu ma yilif dara du ko mën a bët duñ fa mën a def dara muy dend ak moom mu di koy seeyal mbaa mu di koy yàq kenn du fa tudd dara kenn du fa jàngale dara kenn du fa def leneen lu dul lislaam ak alquran ji ak xasida yi ndax yow yàlla yaay boroom nam nam goo xam ne loolu nam mu am yaay boroom traanga ji kon nag béelal faw sama texe lii bi iqtidaay yàlla nga ma may ak jéggal xini iqtidaay yàlla nga ma musal ci way jalkat yi zit ni yal yàlla nga ma dolli ak njub zit ni iqtidaay yàlla nga ma dolli ak roy ci yonent bi sallallahu taala wa bilaa anaa yi ci lu àndul ak benn coono nag sa fixtifaa yàlla nga sellal sama dellusi ci yow bilaa jafaa yi yàlla bu euh, mu ci amuk tumranke maanaam xamu nit dee nga àll ba mujj ci loxo yi ñoo xam ni lañu maanaam yaakaar dana tas sëriñ bi nag di ñaan génne àdduna ci bokkam bëggit ñu def ko fi mu ko bëggee ñu denc ko fa barab ba nekk barab bu ñuy ziar nekkit barab buy naatal réew mi waaye di naatal gox ba te loolu te ngeen seen bët muy firnde ju leer nañ wali yu yàlla kenn du ko toxal ci dëkk boo ko fa toxalee rek dëkk ba gent moo tax yonent ab yonent bi yàlla fu mu génn àdduna rek foofu lañ koy denc fu mu génn àdduna rek foofu lañ koy denc ma ngoog moo tax mu ni euh, sa fixtifaa yi yàlla nga sellal sama dellusi ci yow bilaa jafaa yi yàlla boo wuññi sama sutura tayib achaa yi yàlla nga teeyal sama ngoon ya tayib xazaa yi yàlla nga teeyal sama bëccëg ya yaasal wujudi yow yaay borom tab yaay borom yaay borom tab gi kun lii bi juudi boole ma ci sa tab gi wajaal hujumi yàlla nga def samay nelaw fawqal adaa yi li may jaamu yàlla ëpp ko fuuf gisal samay nelaw yàlla na gën a néew sama jaamu kon gis nga nit ñi ni ñu xëccoo ciy nelaw dem nañoo dema dema dem ba kër ay lal yu nooy ak kër ak tayeel ak yu sedd yoo xamante nii boo xasee def doo xalaat lu dul nelaw ak tëdd ak xeeti lekk yoo xamante nii boo ca jógee dootoo xalaat lu dul tëdd ak nelaw loolu tax ñoom kilifa yu baax yi dara daaw leen neex ndax seen bakkan lu seen bakkan mu sa bëgg rek loola lañuy ñuy combattre fas yéene ko wan ginnaaw xam ni bakkan moom du la bëgguloo mukk lu lay jëriñ waaye lal bu nooy bu neex bu nëtëx climatiseur ci biir ah as koppar ci banque bi jongama ci sawet néew na booy fanaanee naafi la moo tax daanaka booy xool ñaan yi yéeg léegi bareetul ndax bari na koy fooge diine ba nga jël sa kaar daw lu bari dem di ko seeti boo yeggee ñu la ubbeegul ubbeegul ko sax mooy yeewoogul yeewoogul yow nga yeewu julli def la nga war a def yépp di ko ziyaara ji dégg fekk moom julleegul sax kum bëgg nag ak secret bi moom moom ne moo war a waaro moo tax sëriñ bi nii wajal hujumi hujudi samay nelaw yàlla nga def samay nelaw mu gën a néew fawqal adaa yi li may jooxe ëpp ko li may jaamu yàlla ëpp ko fuuf xablil widaad yi na nga ma may cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xut na nga ma wommatal samay bëgg-bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yaay borom may yaay yow yaay mayee njëriñ bilaa kiraa yi te doo ko jaay doo ko luye doo ko tayle hablil buruura yal na nga yal na nga ma may ak tub xinil xaruura yal na nga ma may ak fegu ak mucc ci iblis dan surura yal na nga ma def jaam boo xam ni dana bégloo li kulli raayin képp ku ko gis yal na nga ma def jaam boo xamante ni day bégloo képp ku ko gis jaam boo xam ne ku ko dégg bët kontaan loolu moom lay ñaan sëriñ bi dafa ñaan ni nelaw yi muy nelaw yàlla na gën a néew naafila yi muy naafila ak topp gi muy topp borom boo demee ci ginnaaw ci waxtaan wulee leen jiitu nee naa la salaatu sitta bi mataxe sitta taatihi batta nee na juróom-benn weer yëpp da koy julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam guddi ak bëccëg yeneen juróom-benn weer yi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi ak bëccëg nee na taatihi batta moom la saxoo abadan abadan waaye gis nga ba tey mu ni samay nelaw yal na gën a néew samay nelaw yal na gën a néew naafila yi bari na koo séen mu tuuti lool ci jëmm waaye la tax mu tuuti ci gis mooy dafa fas yéenewul di duufal matière duufal matière mooy foo fekk na da ngaa animé yeeg da manqué nelaw ak da ngaa insomnie nañ la defal léeg nañ la monté léeg yooyu yëpp mag ñi dañu daawul doxe nooru mag ñi lañ daan doxale mooy tëdd guddi te naafila lu mat nangami rakka xiyaamu layli wala kaamil bi nga jàng ko ba mu xaaj ñetti fan yu nekk nga wàccee ko xeeti jaamu yàlla moo doon tax dañu daan tuuti moo tax seen jëmm daawul rëy kenn doo ko mën a gis kon bari na koo xam ne danga koy séen mu ne jàgg ak i garaam bu bam boo ko séenee muy nes ne si nga defee nag leerug lislaam la fekk karim ak li muy diwoo rek la waaye ba mu ko jee julli julli juróom ca waxtu wa sax kenn xamul kañ la doo ko gis jàkka doo ko dégg ci jàkk ji sëriñ bi nag di wax ni mu am yàlla samay nelaw samay nelaw yàlla na gën a néew ma ngoog fawqal adaa yi ba li may jaamu yàlla ci guddi yi mun na ëpp nelaw yi daan ni hab lii wi yi yàlla na nga may cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi kon sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fi nekk man ahabani kaana maa yi fil janna sang bi nee na képp ku ma bëgg ba àjj na àjjana xabli wi daal di yàlla nga may cofeel ci nabi sallallahu alayhi wasallam xutlil yàlla nga ma wommatal samay bëgg mu tegu samay loxo te yàlla defal na ma ko yaaman afaada yow yaay maye njariñ bilaa kiraa yi te doo ko jaay doo ko luyee doo ko tayle xabli buróoraa yàlla nga may ak topp ca yàlla xinil xaruura yàlla nga may ak fegu ci iblis mucc ci iblis abdan shakura yàlla nga ma def jaam boo xam ni dana bégloo li kulli raayin képp ku ko gis washkur xilaam yi yàlla nga gërëm sama xalima gii waxmat kalaam yàlla nga gërëm samay wax bilaa malaam ci lu àndul ak benn yeddeel walamtiraay yi wala ay werante saddit lisaani yàlla nga sellal sama làmmiñ nawir jënaa yi yàlla nga leeral sama xol bi sa fi amaan yi yàlla nga ñoŋal sama sécurité wasit buruuraa yàlla nga ma dolli sama mucc yàlla nga ma dolli ak mucc lool sax macha allah moo tax mu ne zëh zëh te dayri zëh zëh ta dayri dàqal nga may lor ya lii xutta mayra lii xutta wamatal nga ma may ya faltak fi jawraa yàlla na nga ma fegal way jéng ya lii man ñu raay yi ña nga xam ni seen lépp ci ngista lañu ko teg xoolal faltak fi lii yàlla nag ma fegal gis nga mag ñi ni ñu déggee dafa doy waar da def da ngay def taqdim fal tak fi lii yàlla nga mal fegal man mu rasul jawraa jàng kon boo xamante nii man mooy ka nga xam ne yuraa ci ngestal rek lay dox te loolu day am ci biir ci biir nit ñi loolu mooy naafiq am na ñoo xamante ni ci diine ji ay naafiq lañu boo wootee ñu wuy si boo laajee ñu joxe boo toogee ñu doog sa boo waxee ñu ne est-ce waaye loo yàqu la rek ñooma loo yàqu rek ñooma moom la sëñ Tuubaa di muslu nag nuru nuru lëb julit te doo julit doon doon lëb julit te doo moom yal nañ ci yàlla boole musal moo tax mu ne fal tak fi lii yàlla yàlla nga ma fegal jawraa aji jeng joo xamante ni yuraa njëstal dong lay def waaye gëmul te la muy def dara moo tax mu ne an xis xiyaal yàlla nga xettali sama njaboot njaboot gi yëpp yàlla nga leen xettali waaw xettali lan déglu fa Sëriñ Tuubaa nag nga déglu baax xeeti ñaanam ak ñun suñuy ñaan an xis yaali yàlla nga xettali sama njaboot gi yàlla nga xettali njaboot gi ñëpp nag boo nee sama rek sax génne ci sa bopp wala génne ci keneen ci lan la leen di xettali min ad-dalaal yi ci réer ak sànkute wabil xalaal yi te xalit yàlla nga leen saxal saraay ci njënd meeg njaay mi bil xalaali ñuy jëfandikoo lu lew danga naan wa bil xalaali njaay mu lew lekk lu lew xalit saraay yi yàlla nga ci saxal sama njaboot xini itaaba yàlla nga ci fegal yàlla nga ñu fegal yeddeel xini itaaba yàlla nga ñu fegal yeddeel xutlil kitaaba yàlla nga ñu wommatal alquran ba ñu dund alquran sax ci alquran bëgg alquran di jëfandikoo alquran waqbal mataaba yàlla nga ma nangul sama tuub yaa zash yaa zash tiraa yow miy gën ji jëndanteel ak jaayanteel yaa xayra rabbi yaay gën ji boroom mu rabbin yaay gën ji yare ji te yebta qalbi laabal nga saaw xol faw baada ti daa ba nga ma faje ginnaaw ba nga ma fajalee samay aajo salli wa sallim yàlla nga musal sang bi sallallahu alayhi wa sallam te dolli ko xéewal alal mu tàmmim te ka nga xam ni moo mottali yonent yépp wa kulli yaasam te nga ñoŋal sama lépp bilenti haay yi te bu mu am benn benn benn jafeñ-jafeñ wala benn benn yeex-yeex lépp yàlla yàlla nga ma ko téel sa bopp fegal ma ko aaral ma ko kon mbokk yi foofu la mooy bi yem sëñ Tuubaa nag di ñaan ku def la la war sañ a ñaan allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa farrixhu bi haadihi almanzumati fi kulli waqtin wa xiinin abadan amin wa habli naazimiha ridaakal akbar fi kulli xarfin minha wa habli kulli man yaqra'uha saadata daarayni amin ya rabbal alamin sëñ bi daa ñaan ni allahuma yow sama borom salli wa sallim yàlla nga julli te sëlmal mbaa yàlla nga dolli xéewal ak mucc wa baari te nga barkeel ala sayidnaa ca kojog sunu sang bañ noonu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñun mooy sunu sang waa mawlaana te mooy sunu kilifa mooy sunu njiit maam koy wax mu ni muhammad book muhammad sallallahu alayhi moom lay wax ci moom rek mu ni déedéet wa aalihi ak waa këram ña ñooñ rek mu ni déedéet wa sahbihi ak sahabaam yu baax yam daan àndal waaye nag wa farrixu bi haasihi l manzuma yàlla na nga ko bégale way wii nga xamante ni way naa ko ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci xolam sedd yàlla na ci xolam sedd yàlla na ko gërëm fii kulli waqtin faf ci waxtu wu mën a doon guddi bëccëg ngoon suba waxtu wu mën a doon rek yàlla na téere bii di mbégtem rasulillahi sallallahu alayhi wa waxiinin ci jamono bu mën a doon abadan faw faw faw faw amin ya rabbal alamin sëñ Tuubaa nee wahab la wahab li naazimiha te man mii nga xamante ne nag maa ko doon nosee di ko bind yàlla nga ma ci may ridaak sa ngërëm al akbar sa ngërëm lu mag la gën a mag yàlla nga ma ko ci may fii kulli xarfin ci bépp xaraf min haa bu bokk ci téere bii bépp xaraf ci am rek yàlla nga ma ci may sa ngërëm lu mag laa mag a mag a mag mu ne wahab li kulli man yaqra'uha képp koo xam ne yaa ngi tiim téere bi di ko jàng yàlla na nga ko may saadat daaray ni texe àdduna ak alaaxira muccuk àdduna ak alaaxira mu ne amin ya rabbal alamina yow sama borom maa ngi lay ñaan nga nangu ñaan gii nga xamante ni moom laa ñaan ci téere bii kon mbokk yi loolu mooy li nga xamante ne moom lañ doon jéem a tënk ci mooy bu naafi noonu nag danoo ferul sax ijji faf waaye dañ ciy góor-góor rek bëgg sëñ tubaa rek ak sopp ko rek sopp mag ñun mag ñi rek lañu bëgg moo tax leen ci xam akas néew loolu dañu am kerse ci di ko wax ndax dana soññ ñi ci am xam-xam te ëppuñ ci xam-xam ñoowet ñu mën cee wax ndax mag ñi ay message la ñu bind rek bàyyi kook askan wi diirub li nu fi nekk yépp ci lislaam rek la nu nekk dinañ ci soññ di jàngale di yeete di nu bëggloo rasulillahi sallallahu alayhi wasallam di nu bëggloo alquran di nu bëggloo sunu borom subhanahu wa taala di nu seexluloo àdduna di bañ loo médd mi ci nekk nguur ak daraje waxuñ ci dara dara dara ba doomam yii nga xamante ni ñoom ñoom lañ ci mujj a gis amu ci kenn ku àdduna jiital gis ñu kenn ku doon xëccoo mbiri àdduna gis nañ tam kenn koo xamante ne yëkkati nga sa baat di wax lenn rek loo xamante ni lu lu loo fi donn lu ñuy donn la mbaa looy moomal sa bopp lu may rek alquran xasida yi orma julli jàngale yeete loolu day moom la ñu xamal sëñ tubaa radiyallaahu taala anhu moo tax téeréem yii ñu ciy góorgóor di ci nab nabi incha allah ñu jéggal ñu bu baax xataa yi maanaam njuumte yeeg saqu lisaan yeeg baat yi ñu gag ak yu bari yëpp ngeen jéggal nu ko fiiri waxi mag ñi moo yombul fiiri waxi mag ñi moo yombul boo amul ku ko tëralal amoon foo ko jànge boo mooy tulee rek danga nga war def ndànk moo tax fi mu ne il faut que ñu gën a yees la daara yi ah, ñi ci jot a xam dara ñu jàngale dis mag ñi li ñu wax te bañ a fétal ndax seytaane dafa bari doole seytaane doolem dem na ba ci yàq liggéey mag ñi jaral na ko lu nekk lu nekk jaral na ko ko moo tax nga fu ne ngay déggee ku si ne toog di wax di waxee bakkan ñii di duufal ñii di ñoddi ñii di jal-jalal waaye jaamu yàlla bu mel ne sëñ tubaa yàlla xéewale nu ko jox nu ko ci mbaaxam ak ni mu mel war nañu mën a gën a baax ci Afrique waaye waxuma sax Afrique waaye Europe sax ku am sëriñ tubaa dañ lay roy waaye wartoo roy kenn wartoo roy kenn wartoo ñee kenn wartoo gis lu kenn am lu may ne dann rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ni mu ko ne woon dann rek jàng julli bàyyi àdduna ak ni mu mel bàyyi xëccoo gi ñu nekkee bàyyi xuloo beeg biccoo beeg mbaaloom bi werante beeg xasante bi yóbbuwunu fenn na leen mooy ci li ñu mag ñi bàyyee mooy alquran xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale julli yem fan yem bu ëllëgee bu ndey ñoom daañu siggi waaye àdduna gii nu topp rek di coow rek di xuloo yóbbuwunu fenn ngeen jëf kon nag foofu laay teg sama baaraam incha ba beneen yoon nañ ñëwaat ci beneen téere nag boo xamante ne ba léegi de ci treize téere sëriñ bi la incha allah Pape Ablaye Dieye moo nekkoon ci technique bi oustaz Alioune Sall lay bàyyee place bi bu paree ñu jox sëñ Mbàkke bu ñu ci jógee ñu ñëw ci guddi gi maag imaam Mor Seck ñu ñëw ci al minbar oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa